wa ba tay ma taxok benen danan bu ñu wax Seydou mbay bu bok ci association des danseurs chorégraphes mbala de Sénégal mo dakal ak carte membre seyd lo yek tay wa tay sama xol dafa sedd so de xol tay da ngeen a relevé la benn monument bo xamanteni ni dotul fay li dafa yeex waaw di contante ci ñep nak di contante ci yeen di contante ci ñi fi tew ñep ndax li tamit bo xolé mo doon lo xamanteni ni moy deug ndax fecc kat ben bop lan ken mu leen xar ñaar grand yi jiitu rak yi topp seen ginnaaw ñu ànd ak suñuy jigéen kon daal jàmm laa gis sama xol dafa sedd moo tax ma bàyyi voyage bi man ñëw. waaw kon loolu loolu ca kaw la. loolu loolu lay fay. waaw waaw. <laughs> eh Dias kaay dimbale ma Dias kaay une mais dama taxaw ak nag. Pa Moussa Sonko ku ne xam ne li mu daj ci fecc ah. ak li mu daj ci aar tey bu luy amee ba taxaw nga nekk président bi lan nga yëg Pa Moussa ci association mais sant yàlla. Mhm. d'abord ndax li yombul woon. Mhm. ba pare li buñ ko defee mhm.

ay temps dañu doon wax ni ñun organiser wu ñu. Mhm. mais léegi organiser wu nañ mhm. ah mhm. léegi am nañ suñu kayit def suñu association képp kuy fecckat yu mag yeeg yu ndaw yi ñëpp bokk nañ day bokk baay bëgg a wan ni ne ci dëkk bi lañ dëkk lii la ñu am muy aar moom la ñu yàlla jagleel ndax ku si ne mënoon ngaa dem Europe toog fa Espagne ak fu la neex ku ne tukki nga waaye boo tukkee boo demee fii ngay ñëwaat moonaam lii lañu am donc organiser wu di ci woo nag kilifa yëpp ñu jàpp ci parce que bëgg nañ tey jii nii ñun ay fecckat lañ dëgg la mais bëgg nañ suba am mutuelle boo xam ne tey ku feebar ñu faj la ci lépp luy problème ñu fajal ko suñu bopp te loolu yëpp mën na nekk di woo nag autorité yeeg woo ministre de la culture rek ñëpp yàlla na jàmm yàgg daal. tey da nga yëngu wal da nga bàyyi xale yi. non tey di gisoo dama koy organiser soluma sax. Hmm. kon ca kon ca kaw la ca kaw la yàlla na yàlla. Salif <laughs> Kaye. barki Rasulullah dama koy taxañ de. Isa xanaa Afrique ba tey maa ngi taxaw ak benn daanaan bu ñuy wax Salif kii nag boo nga gisee xel yi dem ci seen Africa xel yi dem ci jàppoo Saam moom ne dafa jógee ba Europe ngir soirée bi bokk ci ADSMS Salif lan nga yëg tey bi nga yëg ne association bi organisé nañ li ba pare yow nga ne ci biir lan nga yëg. waa Ndior euh, tout d'abord damay nuyoo dama lay nuyu. di la sant. Mhm. waaw di la wax ne nag namu naa la torop nag waaw tey nag di am mbégte ak kontante bu baax baax te ñëw fii nii ci asos bi mhm. comprendre nga bu seen event bii ñuy xewle nii mhm. waa yàgg na nag ñuy nekk ci groupe bi di wax mhm. xam nga tey dama am mbégte gisaat yenn kanam yi nga xamante ne nii dama leen a gëj gis parce que aar rek moo mën lii waa lii dafa lii rek motivation la boo xamante ne nii ñu ñëw lii dafay woon ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw comme yàlla def na ñu am benn association boo xamante ne nii ku nekk mu ngi ci mhm. te ku nekk rek yàlla am na lu mu la may mhm. léegi loolu lu la yàlla may noonu dama bëgg ku nekk ñëw boole li la yàlla may mhm. ak lii sa xol ñi boole xol yi te yàlla dafa ñu jàmm rek affaire yi gën a mën a ubbeegu nag lii lancement la rek waaw après film bi yaa xam naa ne dina gën a ñëw ci kanam tamit ak yeneen projet yoo xamante ne tamit dina gën a yaatu spectacle yi ak affaire yi waaw di am mbégte nag di gërëm tamit prési waa prési yi ak yëpp laay wax waaw parce que ñoom sonn ngeen ci yéen ñëpp sonn ngeen ci organisation bi waa kon lii la rek grand yi ñoo nekk ci kanam waaw nañ ubbil yaatal booy te yaatal nañ booy booy te bu ñëwee dañuy gën am fit pour lii na dara méttiwul aar bi yaatu na ko ca kaw loolu ca kaw loolu <laughs> sama maes laa fekk xalifa mbay nay nay kii kii kii mooy suñu maes kii yaakaar naan fecc bu développé Pikine rek ñun ñëpp jaar nañ ci loxoom jaar nañ ci ay tànkam xalifa tey association bi taxaw ñu nekk suñu première guddi suñu premier programme wa yow nga nek ci nak lu maga maga mag mi vice eh, nga nek conseil président pa Moussa Sonko yow do ya, ya ju silib amul tax xala bo yaru nga xëy na bañ koy dor sa fekke woko da ba ko fekke ñu ñu ko yow ko melni Aziz Dabala ligay bi def tay ma nak dam bu mu yaroon nongoloo ñu yaroon ñu man ak ñu bok classe kon bëss bi mom dara du wuté parce que amul tax damay mhm. centre Pikine iya. ndax Pikine la bëgg wala gëm moo tax bu ñu xewalee suñ premier guddi mel ni ki ma jàngandool mu doon sama xarit bés bi tey ah man de Khalifa Mbaye na la sur le plat la rek mais après play ba gi ci biir waaw ceeli la ñuy doon et puis dégg naa da nga jënd single bu bees bu tudd lan waaw loolu douze mais mais Khalifa kon dañ koy xaar ci ci biir parce que kenn woyegul douze waaw Michael luppee na ko Youssou Ndour luppee na ko <laughs> waykat yëpp dañ koo luppee wooy nañu dee ah. wooy xiif ah. way <laughs> wujju way aawo way wa sax way nañu waañ ndax papa nee na boo dem ca waañ ba o o oh, <laughs> oh, raayam o oh. kon tegal <laughs> ah, nit la mm-hmm. du doo Pikine magoo Pikine xam lu bëri ci Pikine kon bu mu gën lii nii nii man sa wàll boobu man sa dama jooy dama kontaan dama kontaan nongu loo sama xarit amat d'enfance la mais kii kontaan na grand frère lu mu lu on ensemble naa. Oh. waaw kon oo. Oh. Eh, kaay. fii maa ngi ñëw de. Eh, taxawal yow tey sama maître. wa wa sama maître ngi hmm sama maître ngi nii. ma taxaw sama rakk nag. Aziz dawala alias keuls waaw alias euh, leuse mi ngi nonu legui nak station bi taxaw na. yow do ci slip caaju mag nga ci. tey mu nek suñu première rencontre sms mm-hmm. wa lan ngay yegg bi nga gisee sa mag ak sa xarit ak sa ñi nga gëj gis yépp ñew tay fi ci Five pour def suñ première programme. waaw Ndiol damay sant yow moom damay waxtaan ak yow. Mhm. boobu ba léegi maa ngi cofal gars yi. Mhm. mais xam nga ngay waxtaanal koo xam ne dafa maîtriser milieu bi dafay baax surtout yow assos bi yaa ngi ci biir. may nuyu bi yëpp. Mhm. association des danseurs et mbalax chorégraphe du Sénégal. mu nekk lu bees tàkk vraiment. nekk loo xamante ne ñun rêvé woon nañ ko. nekkoon loo xamante ne ñun fecckat yi bañ dalee dugg ci fecc ba léegi ñu ngi doon bugg gars yi boole ñu mais gàcce ngaalaama Paa Moussa Sonko gàcce ngaalaama ak ak ak ak assistant am Khalifa mbay mm-hmm. bi nga xamante ne moom dëgg neexu xelam bu sell ba mm-hmm. te nag wax dëgg yàlla bu ko neexoon mm-hmm. li mu def defuñu ko moo ñu gën a maîtriser milieu bi moom xalifa mbay waaye Moustapha Mbaye weetu ci Moustapha Mbaye ci conseil suba ba léegi mu may woo weetu ci ñu jógee foofu yéelu cuun mu ngi woote téléphone mu ngi ba Suisse di ma woo ma Ziz defal nii defal nii defal nii yéelu cuun dëgg neexu ris ba ñaa boobu ba léegi nelawuñu dugg nañ fu ne yow xam nga li ma lay wax waaye Djily Mbaye Fall bàyyi waa Nantes bàyyi jabaram bàyyi fameem mhm. na histoire danse la bëgg mhm. mu rafet mhm. ndax ñoom dañoo defar ba mu baax ñoom barki Seydina Mohamed defar ba mu baax kon ñun booy suñ ñëwee bu ko yàq ñoom dañoo war a jën te Djily Mbaye Fall gàcce ngaalaama lañ lay wax kon kontaan nañ wax dëgg yàlla Serigne Mame Diarra Djily wax dëgg yàlla grand man gën naa la naw su may partagé yéen di wax yéen téléphone damay kontaan parce xamante ne tubaab fa kàlla képp kuy xale rek rêvé nga am cër bobu vraiment Ma ngi sant wa asus bi yëpp may ñëw ci jigéen ñi jigéen ñi nek jigéen ñu am jom jigéen ñi nekk jigéen ñoo xamante ne tubaab fakàlla masala ay jigéen ñu mën góor lañ ku ci melni Aïda Dada vraiment ma sœur vraiment kontaan nañ trop ci mom parce que wax dëgg yalla Aïda Dada yow xam nga li ma lay wax lekut nanu ñun góor ñi fu ñu dugg dugg na fa jigéen ñi commencé yox yoxal sax Aïda Dada dugg ci débat tas ñëpp dugg Aïda Dada yalla na yalla yalla na la yalla may jamm ci honnête bi nga nekk ak dëggu bi nga nekk Aïda Dada ma jóge foofu Oumou saw saw Sabol ki nga xamante ne yow nee naa la yow monument nga référence nga Oumou saw Oumou Sow yow sunu sunu te nga vraiment Oumou saw sunu fierté te sunu fierté nga Oumou Sow dama lay ñaanal rek dama lay ñaanal Oumou Sow munu ma wax ci yow vraiment parce que xam naa man di nuyu tamit Ndeye Gueye Seydi Papa Boy Djiné ki nga xamante ne mooy général def loo xamante ne nit defal ko ci danse mu wàccee boppam moom Ndeye Gueye doon yaay faal ànd ak ay rakam ne da leen di gunge kon dey géey lii mais bu ko kenn dagg njool bu ngeen monté parce que lii mooy base bi lii yow waral bis bi am kon dañuy wax jàmbaar ñu góor ñi ak jàmbaar ñu jigéen ñun suñuy rakk nag kenn duñu tudd ndax nag dañoo topp suñu ginnaaw mag ñoom la ñuy wax seeni baax baax ndax bu ñu waxee kenn wax nañ ñëpp waaye ndey géey séeri papa booy jinne ca xadar ba ca jom ja ca wàccee boppam ca li mu doon yaay faal lu ne laa ko wax ci programme bi barki Seydina Mohamed ji dégg nga ji li may wax nii jingéen mooy wax nii moom bàyyeegul ba léegi barki Seydina Mohamed ñoom bàyyeeguñu mais ndey géey dañ koy sant Koura Mbaye yónnee xaalis bu bari maa ngi tooñ maa ngi koy tooñ bëggul woon ma xoi mais Pa Moussa Sonko moo ne ma Aziz Dabala Koura Mbaye il faut ñu wax ko parce que da koo def dañ koy wax jëndal ñu bëri ñi mu jëndal ci nit na cinquante ticket ñu jóge ci Koro Mbaye Aïssata Cissé bu ko neexoon na moom dëgg neexul mu ngi eh, mu ngi Paris la France di ko wàccee ba zéro mu ngi bu ko neexoon sama ginnaaw sama aar bi sama yoon newu ci mais ne xam na ne xaalis bu mu indi dafa bëri ah xa dégg nga bàyyeeguma gis ngeen jiili yii la may def xam nga li dafa neex non li dafa neex <laughs> ñi nga xamoon te da nga doon rêvé pour lig pour nekkoon seen fans mm-hmm. nga dem bay liggéey ak ñoom ñu lay teg pression man lii dama ko bëgg ay laaj dama ko bëgg trop vraiment wax dëgg yàlla ñu nekk jigéen ñu am jom jom jom jom may nuyu waa asus bi yëpp di leen na nag dañoo def leen war ndax nag kat tamit nekk na fi star fàtte ne kat am na ñu war a dimbali te ñu jekkoon ci lool waaw te dañu woote tam woo nañ ñëpp woo nañ ñëpp vraiment woo nañ ñëpp waaye sant yàlla la ñuy def mooy dugg ci soirée bi satisfaire gars te xam ne gars yaa ngi ñëw yàlla na def jàmm waaye Riss Baba Niang kenn du moom Sonko yaa ba Pa Moussa Sonko nañ ci moom Papa Ndiaye Thiou Amady Badiane Ahmed ñëpp fi ma leen dëgg xam mooy lan booy léegi dañoo comprendre xam ne mën ngaa def théâtre mën nga musique mën nga danse mën nga def lépp yow nga teel a comprendre lool lan nga wax nag booy yi nga xam ne ñoom léegi ñu ngi soog a comprendre lool ñu topp ci ginnaaw Sonko yaabu suñu dëgg la non booy boo bëggee avancé da seet ñiy avancé nga ànd ak ñoom di xool na muy doxee di xool na muy waxee bañ a dépassé li muy di parce que booy dañuy bëgg bës ba ñoom ñoom na ma nit ñi tudd rek nañ ma def ci tiktok bi naan ñi ma ne ci loolu du aar ñun ñii dañoo topp ci ñu ginnaaw nag Sonko yaabu mooy président dugal ci groupe bi jënd sa carte de membre ñu xam ne yow kat nga nga am sa carte artiste ah ndax Pa Moussa da lay woon lépp la lay woon teg la ci code bu nguur gi jëndee subvention nga am comme ñëpp est-ce que comprendre nga boo baree ci loolu nga dem balay wato si ta mu ngi fi Africa Ndigal mu ngi fi Sorano Pa Moussa Sonko mooy directeur artistique bi xanaa kon buntu i ibbeeku na ndax moom avant moo nekk directeur daana dimbali kon bu nekkee directeur moom Pape Moussa Sonko kon gars yi ku ci góorgóorlu tuuti barki na Mouhamed laa lay waatal di nga dimbali ngay dimbali baay te kenn du la xeeb. kon asi loolu ca kaw la. <laughs> wàcce mi ngi noonu ah. ba tey ba tey ñu ci guddi gi ba tey ñu ci guddi ma taxaw ñaari ndaanaan Issa ak suñu grand Tafa. Tafa nag boo ko boo ko xoolee sa dem ci Yelli Cuun sa xel dem ci Jili Mbay tey association bi ADSMS muy suñu première rencontre nga taxaw ak sa rakk nii Issa lan ngay wax nga nekk ci organisation bi di suñu mag di ñuy jëmmal te lan nga yëg ci guddi guddi gi yi. xanaa booy lim lu ma yëg mooy kontaan parce que affaire bi ñu koy commencé métti woon na torop yow xam nga ci loolu ndax lii bu ñu ko defee du pour ñun waaw lii pour suñuy rakk la ndax lii initiative mooy dañoo xool fecckat fii musicien am nga foo wéeru waykat am nga foo wéeru mais fecckat am fu mu wéeru ñun amuñu statut moo war a association bi ngir ëllëg ñu mën la identifier nga bokk ci waaw waaw fecckat yi fecckat yi bu njëkk waykat am na statut musicien am na statut mais fecckat amul statut léegi nag ñun ñu ne ñun loolu pour lan bu ñu xoolee fecc histoire fecc Sénégal fecc amul fecckat ñu am récépissé récépissé guru la association pour dans Sénégal bépp ñëpp guru boobu ñu ñu ne nag lii nañ ko def yéen parce que ñun suñu yool ñun suñu wàllu wéy na mais ñun si yen suñuy rakk ñun yéen lañu xalaat fi ñu jaar bëgg ñu ngeen jaar fa te affaire bi dafa changé moo tax ñu ubbi ñu ubbi association association bi ne ñëpp xam nañ ci il pour ñëpp la nag artiste bu nekk ci àdduna bi Sénégal gépp parce que bu ne association des danseurs chorégraphes mbalax de Sénégal rek mooy ñëpp ci lañ bokk ñu nag njool ñu ngi yaatal suñu loxo wax xale yëpp ngeen ñëw ndax yëpp ñun ñoo ko bokk ndax liggéey baa ngi fi ndax booloo mooy doole kon nañ booloo am doole ndax bu ñu mënee waxee ñun ñu dégg ñu kon li moo waral lii man nag li dañoo départ rek lii dañoo ñëw di café gi la añ bi ñëwagul reer bi ñëwagul te njogonal gi day ñëw ak tëddaale bi ak mbasaale bi waaw jëgg neexul Issa nga doon Issa Dambu Ndig mais Issa lan yëg tey bi ngay association bi créé nañ guddi gu mel nii yow ngay danseur ñu lay woo Issa Dambu Ndig lan yëg tey ci guddi feccikat yi waaw njool loolu boo ma si laajee dinaa la si sawar a tontu ndax tey jii lii dafa yéexoon mais tey jii suñu mag ñi bu ñu jàppee lii def ko ñun ñi nga xamante ne ñooy xale ñu ñëw topp seen ginnaaw ñu wan ñu yoon bi tette ndax lii dafa mës dafa dafa musta am ci aar ay danseurs yoo xamante ne ñoo booloo doon benn say ñëw taxaw organiser li nga xamante ne mooy soirée bu mag war a organiser waat yeneen soirée loolu dafa rëy may ñaan ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulilahi rabil alamin woon naa aar bi tolloon naa benn moment boo xam ne dama tiitoon ndax xale yi waaj a ñëw amuñu si lu ñuy jàpp tey ji xel dal na ndax association bi ñëw na xale bu ci judd rek war a dugg ci aar xel dal na na ñëpp daw si dugg ci association bi ñu ànd xàccandoo dóorandoo Ndiol Happiness loolu laa wax. ca kaw merci. waaw mais mais mais ñëwal mais dama fa am benn gan nag koo xamante ni ndaanaan la ndeysaan bu ñu nee Ngone ne jàppoo bu ñu nee Ngone Sane Africa buñ ne ngóone ne rak Ibrahima Sarr suñu rak ñi ñëpp mu mën aar bi nag xam li muy def di ko teg ci temps heure ngóone bi nga yëgee association fecckat yi taxaw na ñu boole la ci nga ñëw ci guddi gi tey lan nga njëkk a yëg ci association bi ngóone waa salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waa kontaan kontaan ak xol bu sedd ndaxte dafa neex ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéey wara booloo ànd ñi xamantewul xamante waaw gise bi rek waa day waaw ma kontaan ci am ci mbégte bu kawe kawe wax dëgg fa yàlla ndax lii lu rafet la lu rafet la bañ ko waree def dafa yàgg du tey bañ ko waree def dafa yàgg du tey man moom bi ma ko yëgee xol bu sedd laa ci am xol bu sedd gis ci samay mag samay raq samay xarit waaw ku ma ci moon rek wax dëgg fa yàlla maa ngi lay dégg ci biir di ci kontaan di leen sant bu baax di len gërëm aussi té di ñaan yalla liñ ci sumbu yalla may ñu ñu eggale ko ak suñu sago ci barke sayyidina Muhammad mais tay di nga yëngu de ah? <laughs> waaw ngoon na mëna sa baaru may la <laughs> waa gis nga lool ci kaw la ñu egg ci biir rek inshallah allah waay moy lool dafa lèr e fiska leer c'est normal boy bi nak limi fecc amut ki ku graw nga ni mais lan nga yëk tay bi nga fecc kat yi taxawal nañ association say grand frère say tante say yaay ñëpp ne ci biir nga nek xalé yu bokku ci association bi lan nga yëk waaw sant yàlla rek wax dëgg yàlla loolu moom geste bu nice la ndax yaakaar naa mbooloo mooy doole te benn loxo du tàcc te ñëpp bokk la ci am doy na lu ne fàng ne kenn du ko jeex tey nag dari bis ba nga xam ni daf ñoo ñor parce que lii kenn xalaatu ko woon mën naa ne Moussa am c'est la première fois kon tey fii dina mel ni sukkuta bën saan bi réer waaw dina doy waar trop. li nga xaar nga jug de. waaw mais dara nañ rek. fii wàcc ba mu nooy. <laughs> <laughs> lan lan nga yëg tey ci guddi euh, feccakat yi. waaw yaakaar naa ni euh, damay nuyu d'abord Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu tamit ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñooy artistes danseurs yi ak danseuses yi tey nag guddi fecc la. te guddi fecc bu ñu ko waxee fecckat yi ñoom ñoo ko moom kon donc yaakaar naa ne képp kuy fecckat rek tey am nga sa wàll ci bis bi di ci nag nuyu ki nga xamante ne wax dëgg yàllam nag icône la ci réew mi muy ki nga xamante ne moo di président Pape Moussa Sonko tey kenn du wax wàllum fecc te boo te moom xooloo ko moom rek doy na fecc mm-hmm. ak sama yaay ji nga xamante ne nag Sonko la moom di yàqul dara ci aar bi ah nañ fecckat yi xool ci ñoom mm-hmm. waaw ah, man nag moom vraiment dama leen di remercier parce que moom mii jëm ji taxaw def na ci ñun yar def ci ñun loo xamante ne nii vraiment fu ñu taxaw ñu naw mhm. loolu moom moo ko def ci ñun moo tax ñun sañu ñoo def mhm. waaw di di remercier kii fecckat yëpp daal mhm. waaw di leen wax ne nag ñi nga xamante ne adhéré guñu nañu ñëw parce que fii jàmma ngi fi ndax boo ñëwee di nga dégg ay conseil di nga tamit am na ci njëriñ yoo xamante ne am solo loo xamante ne nii xale yi xamuñu ko woon bu ñëwee ci biir association bi dinañu ko xam waaw waaw single bi laa leen fas yéene tey. dégg xam nga naa la ci umu ah, umu la. <laughs> mi ngi la gars yi nag ñu xaar clip bi. waaw allah xam naa ne dina ñëw le 15. léegi nag le 14 incha allah ci laay def lancement bi. waaw tuddee ma ko kenn nag association danseurs laa ko tuddee. Mhm. waaw ñoom rek laa ko tuddee nag. waaw ñëpp a ñëpp ñëw. ñëpp a ci biir incha allah balaa ngeen doon faral di jox ma ko teel suñu micro yi bëri sonn naa teel ku ne fecc wax Riss Baba Niang Riss lan nga yëg tey soirée ADSMS bi nga xam ne mooy suñu première rencontre lan nga yëg tey ci guddi gi. waaw mais kontaan kontaan xam nga bu ñu xewlee moom nii rek la war a demee. waaw ndaxte dañ association bi la ADSMS. ah association bu bu mag bi. waaw ndaxte yàlla def na ñun ñëpp ñu dem ba def retrouvaille woote benn bopp. ken munu ko xar ñaar mhm. mhm. ah ànd doon ben rek mhm. ngir xalé suñu rakk yeeg suñu jarbaat yeeg ba suñu doom sax xaj nañ ci lolu mo waral nak soirée bi tay te li ci kanam nak raw li waaw bis lañ day waxe xalé yi nga xam ñi ngi ci ar bi di fecc tey tay duggaguñ ci ci association bi di dégg ne rek te xamaguñ la association bi di jariñ li association bi di jariñ bés buñ ko xamé ñom ñep dina ñew parce que du pour ñun ah. du pour ñun gaay yi xoolanu xaalis xool nu dara lu ñuy def sax danuy volonté wu génnee na acca nan def waaw kon loolu pour ñoom la may wax na bépp fecckat bu ñëwagul adhéré ñëwal nga bokk ci ndaxte njëriñ la pour ñëpp pour bépp danseur waaw du njariñu kii du njariñu kële sunu yëf la waaw Riis gars yi dañu lay gis yéen saa nga ci Viviane yéen saa nga tëgg jël bi tëgg yéen saa nga fecc Riis ban la ci tëgg kat <laughs> waaw mais mais xam nga polyvalent la waaw mën naa fecc ñu tëggal ma mën naa tëggal fecckat waaw. loolu naa tamit yaa njëkk a tëgg ci rab. waaw loolu moom suñu borom def na ko mag positif Black Soul. Hmm. sama gars yi ma leen di nuyu PBS. Hmm. <laughs> one love hmm. waaw. is xam ne yow gars yi dañu laa Ris. waaw ñu bëri ñu bëri nag xamaguñ ne damay képp yëf yi di tëgg. waaw waaw. mais tey kon di nga wane sa bopp. mais ci association bi foofu la ñuy wane lépp ndax association bi. li muy ëmb dafa bëri de. parce que yi macha allah Pam Sa Sonko. xam na lépp dégg na daal yi ah? kon bés bu gars yi demee Sorano mm. wala dem Grand Théâtre mm. dinañ gis dëgg dinañ xam ne ne président am na lu mu mën mu saw Ndeye Gueye Aïda Jili Mbay Yëli Cuun ah Amady Badiane Amé Thiou Yanda xalifa Mbay dinañ wane suñu bopp waaw <laughs> damaa nekk ci liggéey nag mais ñii maa leen di dugal fatabar fakala macha allah xale yi xew ci jamono nee naa leen yàqu leen aar waaw waa watu sita samay doom caam ñii Pa Moussa moo leen tàggat tàggat ma man mii waaye bébékat yi am na émission bu rëy bu lay xaar ak Pikini production dama doon xaar mu ñor rek mais fii laa koy annoncé gars fii kii laay njëkk a defal émission boobu parce que li muy fecc neex na ma teg na ko ci yoon maestro barki démb daf ma ko laaj mi Mamadou Lamine Mayga ne ma Aziz ki nga àndal ci clip boobu noonu kan la ma ne ko sama doom waaw jeex na kon yàlla baax na leneen ak leneen dina ñëw te international ah. def na tournée internationale yu nga ko gisee nii Bébé Khady lan nga sentir sa bopp ci soirée bi tey. papa Aziz tey soirée bi dafa nar a wàcc. ndax suñuy yaayee xewle suñuy papa le kon noo def seeni doom ñëw. ñu def ba mu baax nag fecc lu neex def démb nag waxuma léegi rëg rëg rëg te yëx de démb laa wax foofu wàcc. <laughs> waaw Aziz waaw comme ni ko Bébé Khady waxee rek mooy loolu day yaakaar naa ne tey du yomb tey barki Serigne Bamba dinañ fecc ba naaw tey barki Serigne Bamba. am sama waa mën a defar déguisement moom artiste la waa Fatim nag mënul wax géwal la mais géwal gu ngeen géer kii mooy rakk awa géwal bark waaw da rakk géwal mbaay mu baax loolu di fecc lu ma neex ku def lii maire bi la di fecc lu ma neex Fatim mënoo wax mais tey waxal ndax fecckat yee xew la tey waaw dëgg neexul tey moom suñuy papa yi xew la suñuy yaay ñu war a ñëw fii rek jàppale leen ah. waaye waa Pikini production maa leen di signalé benn affaire bu war a ñëw ak bébé Khady mii inshallah premier numéro bi mom ak patron mom lay jël na ñëw bo wota ci ta jël ci la ndax Sénégal dañoo war xam li nga mën a neexul waaye waaye yaa <laughs> ba composé dama ko jaabal fii wura la la jëmboon caralala carala loolu attanu ma ko mako yi a bientôt Ndeye gay ah wax dëgg yalla ma nga ci war bi ndax wax dëgg yalla waaw mom la lay wax ni ma nga ci war bi suba ba léegi li nga ma nga ci mais terawul maa ngi liggéey ak Pikine production ak Pikine info ñoo ñoo fi ñëw tey nga nekk koo xamante ne tubar fa kàllaama sala li ma wax sànq ci télé bi rek monument nga ambassadeur nga fa nga taxawoon yaa nga fa ba léegi ndax lan da ngaa egg bi nga eggee da nga gëstu na ah samay rak no il faut ma woon leen yoon bi nee naa leen sànq am na artistes yoo xamante ne feccikat lañ dañoo dem ba ci kaw fàtte ne ay feccikat lañ wala taw naw loolu tudd feccikat yi mais yow loolu dalu la barki Seydina Mohamed ba bële déglu ma rek ndey dama koy wax da koo def da koo def quoi boo gisee ma takk ci rip nga dénk ma may rey sama bopp Ndeye Gueye dama lay xamal ni wax dëgg yàlla yow ma ni maa nga Ndeye Gueye vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm ci li nga taxawoo nouvelle génération bi léegi Ndeye Gueye loo yëg parce que euh, euh, Aziz Dabala ñun succès yóbbuwuñu dara yóbbuwuñu ñu ngi taasu waaye ba tey on reste toujours danseuse kenn duñu génn ci biir danseurs yi et danseuses du Sénégal suma rakk ji li ma la dénk yaag njool mottali ngeen ko defal ngeen ma ko yàlla na sa jàmm yàgg Pikini production nag maa ngi leen di nuyu ndayawa maa ngi koy nuyu ak jëkkëram ah di leen ziar Pikine info ngi nii Pikine info di leen wax yàlla na fi jàmm yàgg Ibro tey nag dañuy gunge suñuy rak rek association boo gisee gunge suñuy rak a war